lay fay alaaji Maas. waaw mais euh, ban ban satisfaction nga am ginnaaw ba ñu libéré sa artiste muy Sidy Diop. waaw sant yàlla julli ci bi sant suñ ñaari waajur di ñaan yàlla rek jàmm yàgg ci réew mi di santaat yàlla bu baax a baax a baax naaw biñ ko libéré di wax ni fi mu jóge noonu nag jombul kenn amaana dañu naan nekk ku nekk na moytu nu ñu fay duggee. ndax nit mën nañ la faa tuumal dugal la fa mën nañ laa tooñ dugal la fa mën nañ laa yàq dugal la fa mën nañ laa jaxaseeg nit ñi dugal la fa ñoom it mën nañoo juum dugal la fa tey nag te ku dul juum amul waaye ndeem nag Sidi Diop li ko fa dugal nag dëgg la juumte la waaye tamit amaana am na neen nu mu fa doon duggee day gën a ñaaw waaye bu ko yàlla dimbalee rek mu génn fa ci jàmm ñu teg ko yenn amaan yi nga xam ne tey amaana sax tuddewuñ ko amaan tey dañuy santaat yàlla bu baax a baax nga santaat yonent bi sant suñuy ñaani waajur ñu ñaan rek mu gën góor góorgóorlu bu génnee mu teguwaat ci yoon te xam naa ni jàngee na ci leçon boo xam ne nag bu moom it ñu nit képp ku siiw ci àdduna jàng nga ci leçon tey kon dañuy santaat bu baax a baax te lii lii ñu ko def nii nag waaw sant nañ ci daal ñu gis ne que ñu bari am na ay rumeur yoo xam ne ñoo ngi koy wax ci Siri Diop ñoo ngi naan Siri Diop ndax carrière am bi dina continuer ndax dina war a mun a amaat way yi mu doon way taxaw ci kaw sénégalais yi mun a mun a mun a mun a continuer carrière musicale. Siri surtout tëgg samedi. Hmm. incha allah bu ah, neexee yàlla. waaw ñu ngi xool. mais hmm. ah, loolu mais mais mais bouger loolu du ya yàq carrière musicale. parce que mu jugee ci tolof tolof ñëpp xam ne Siri Diop tamit ni mu àndee woon. ak ah. ak euh, ak fugam. ñi fi toog ah, président ak première ministre fan lañ jógee. kaso la dañoo jógee ci kaso bi ñëw toog seen nguur gi nga xam ne àdduna bépp ko bëgg a toog. kon tey kaso tey mën na laa defar te mën na laa yàq. waaye si nag kaso xam naa ne daf fay defaroo ndax jàng na ci lu bari ndax tey boo ko gisee xam ne kii am na lu bare bare bare lu jóge ci moom parce que ànd naa ak rus. ànd na ak kersa ànd na ak ak ak ak ak ak ak ak ak rëccu kon tey bu ko yàlla dimbalee ba fii nii nag man xam naa ni Sidy fi lay jaaree di way lu neex di def lu baax di nekk ci yoon ba faaw. xanaa dina génnee singalam singalam bi dina ko xanaa singal bi dina ko génnee. Sidy Diop album la génnee album bi dañoo génnee woon huit titres mu des huit titres. léegi huit titres yooyu nag ñu ngi ciy liggéey a waa suba teel yàlla dina ko dimbali defal ko jàmm. li ah. koy ñaanal mais bi ñu génnee dañoo gis avocat bi yor naa image bi mu ne nañ ñaanal Boucher parce que moo tax mu génn waxul Matar waxul keneen ak keneen yow la. non mbir moom ñëpp ci jàpp. yow lan moo tax mu ne mu taxaw ne jël engagement si biir tribunal bi ne filmé. waaw man dama ñu filmé wu ne ñaanal leen këccëg parce que moo tax. Boucher génn ak ah kii parce que foofu xam nga tey Sidi lan moo tax mu loolu du showbiz wala. xam presque treize avocats taxaw na tey nag ay nitam ay am di jàmmam man avocat boobu di wax loolu man maa ko jël ak beneen avocat ah, man rek jël naa ñaari avocat yoo xam ni pour Sidi Diop ba pare leneen ak leneen ak leneen ak leneen dem na ci loo xam ni du ma lu du ñuy wax waaw moo tax avocat bi taxaw na la gërëm leen këccëg parce que man yooyu samay avocat lañ ah. ñaari avocat yoo xam ni samay avocat lañ samay avocat bopp lañ samay avocat yoo xam ni man la ñuy plaider fépp mm. man la ñuy musuma def dara lu ñaaw nag di ñaan yàlla bu ma ko def mais ñoom samay avocat la ñoo xam ndax nit ku baax ku ne ci àdduna bi nit ci nekk ci réew war ngaa am ay avocat man bu dee États-Unis am naa fa ñaari avocat bu dee Sénégal am naa fa ñaari avocat tey lu xew sa ginnaaw ñoom mën nañ la ko lijjanti avocat boobu mbay doon wax loolu sama avocat la am na beneen avocat boo xam ne tamit sama avocat la ñoom ñoo ñoo woolee ñu dem foofu noonu ma jëleen en charge ñu présel sii lolu motax mu ne gërëm leen ci ci waye nima ko defee lako ko Matar suba tel defee nima ko defee lako Aziz samba defee nima ko defee lako lako rew ko réew mi yëpp defee ba ci yaw mi ba ci ki yeen ñëpp ci jàpp ñu ngi gërëm ñëpp di santaat ñëpp daal. waaw Sidi ñu daal dégg naa Sidi sax Sidi mo ñu commencé mën a mais bu see ñu jugee ci ci ci ci coow Sidi dalaat ci beneen coow yaakaar naa ne moo tax mu ci woon débat te yaakaar naa ne jot na tey nga wax ni ci ay éclaircissement li nga xam ne bëgg nañ ko dégg tamit sénégalais yi sax nañ ko dégg coow amoon na fi meurtre Aziz Dabala mu bëri polémique loolu nit ñi ne Aziz Dabala duñ ko reyee rey bu ñaaw la ba ci loolu noo de nabu la loolu lan nga ci ko mën a wax ak jëf bu ñaaw boobu li nga xam ne def nañu ko ci ñi nga xam ne muy artiste yi toll ni Aziz Dabala waaw balaa dara man dama ne woon sax dama dinaa ci leeral bu baax a baax a lii may waaj a tontu nii sax dama ne woon du ma ci tontu parce que man dama nekk nit koo xam ne dama ànd ak sama conscience tranquille lépp lu may wax rek xam naa fu ma ko posé xam naa fu ma ko teg xam naa ci lu leer lu ma ciy def tey am na benn instant ñu jël ma eh, Touba may wax ba ma doon wax li ma doon wax lépp yéen a ngi koy gis parce que man li ma doon wax lu leer naññ la dama ko dama ñaanal Aziz balaa ñaanal ko yàlla sunu borom yàlla xaare ko àjjana yi firdawsi si sey loolu mooy priorité ci nit ku génn àdduna amul leneen loo ciy teg ma pare tegal leen ci ne leen mënaguma wax ci loolu ndax li ma ci bëgg a wax après laa ci bëgg a wax bëgguma cee wax nii ndax fu mu nekk dañoo nekk ci màggal gi waaye li ma ci bëgg a wax damaa bëgg a toog waxal ko sama bopp lépp ñu jël affaire yi dagg ko partagé ko naan buuse nee na bëggul wax ci lii ndax màggal gi kërti kërti ma xamal leen waaw ma xamal leen non Serigne Touba moom bu dee damay bokkaaleeg moom noonu laay deewaale ndax man Serigne Touba laay sant avant yàlla sunu borom ndax yàlla moo ne sant la leen ma nit balaa ngeen maa sant kon man Serigne Touba laay sant balaa maa sant yàlla man ndax samay mbir ci Serigne Touba la koy jaarale yàlla eh, Serigne Touba jox ma ko yàllaa ne ku santul nit doo sant moo ko wax ci alquran kon man ndax du ma sant Serigne Touba mi nga xam ne moom la ma yàlla booleel bul dagg débat yaa ngi dégg dagg samay mbir puuse nee na du du du wax ci mbir yi talul loolu dañ ko garaawal sax talul loolu eh, màggal gi la tal xam nga garaawal ko bëgg a yàq daaw heure bii laa gàddu ay dàllu la jóob ñu bruit ñoom daal dafa mel ni ñiy wax loolu màggal gee leen di déranger te màggal gi nag ku muy déranger sama boor dinaa la rendi dama lay rey ndax man xam naa ne màggal gee ma gënal lu ma mën a am ci àddina yaa ngi dégg waaw léegi nag ni ma ni ma xam naa ni may bruit di kii léegi nag yenn marirandoo yi nga xam ne bëgguñu sëriñ bi bëgguñu yoonu jullit léegi ñooñu ñooy dagg say mbir di ko yàq di ko def di commentaire lu kon léegi nag ñun suñuy nit ñun ñun ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla bëgg sëriñ bi bu ñu toppee ñooñu rek dinañ dugg ci ay erreur ndax man ni ma mel ci sëriñ bi day am ñu muy déranger ñu muy déranger nag ay yéefar yu bon lañ nit ñu bona bona bona bona bon màgg sabab màggal lañ bëggoon a yàq ñu tuuti ci loolu ndax ànd naag sama kees concert tranquille léegi nag chaque jour ma leeralaat leen ñi nga xam ne dañoo bëgg sëriñ bi wala bëgg diine wala bëgg maam alaaji Malick buupour de Ndiassane nañ def très attention ndax ñi am na ñoo xam ne ay 19 compte la ñuy yor nekk ci commentaire yi mel ni dañoo bëgg murit naan ay damaa gëm sëñ waaye gënoo maa gëm sëñ Tuubaa waroo wax lii dañuy fen duñu ay waxuñu dëgg ay yéefar lañ ñu bon moo tax ñu bëgg a yàq màggal gi bëgg koo ruubee léegi nag ñun suñuy nit ñi nga xam dañoo gëm yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa buñ toppee ñeene dañuy yaakaar ni ñëpp ñoo ñoo leen gën a bëgg sëñ bi léegi dem di farak ñooñu di humilier buuse te ay fen la man du ma wax lu ñaaw du ma ko def màggal gi leen dérangé buuseeg jaaxar jaaxaram ak cëfër cëfëram ak lëfër lëfëram ak bëgg màggal gi di ko bir wi ñu xam ni màggal gaa ngi dérangé seen xol yi ndax boo bëggul sëñ tubaa sëñ tubaa da lay lekk maanaam sa xol bi lay lekk par tuuti ba mu jeex tàkk léegi ñooñu nag ñooy jël say vidéo di ko dagg naan nee na talul aji dabala deful lii léegi nag boo amul xel dëgg te far yaakaar ni ñee li ñuy wax dëgg la ndax ñun ñoo ñun ñoo te fekk faruñu ay yéefar lañ nañu def très attention man du ma wax lu ñaaw du ma ko def dama ne bu màggal gi passé dinaa ci wax ndax fi mu nekk nii li ma ci bëgg a wax yëpp mënu ma ko wax fi mu nekk nii ndax affaire yi daa nekk ci justice daa nekk ci yoon te am naa ci plein droit mais nag yéefar yooyu nag ñooy jéem a manigancé ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg sëriñ beeg bëgg yàlla kon def leen attention bu baax a baax te te bu sa ci ci ci dégg-dégg bi bi nga waxee man jàpp naa ne li nga wax tamit dara aayu ci dëgg la dara ay ci mais mom la lay wax dafa am ay yéfer yo xamni dañuy am ay 499000 cent quatre vingt comptes léegi ñoom ñoo nan xaaral ma roubé mouride yi sama vidéo ne xol leen bousa wax du ñaaw ci mu wax légui bu ko défé mouride pire yi yaakar ni ñe ay mouride lañu ñu jaxase ko ñu jaxase lé nak man fekk ñom du ay yéfer yu bon lañu bëgg yàq magal gi nañ bàyyi xel loolu bu baax baax baax baax mais lan nga ñu mëni wax ci dee ci ci ci ci rey ñaaw bi nga xamné def nañ ko ci Aziz Dabala ñëw ray ko xam ne la bokkoon kër ñu dëkk muy waal yi. ko fenn du dëgg du yoon teguñu ko fenn kuy raye kuy raye kuy raye dañu laa war a def noo xam ni kenn xamul nu mu mel ray moom du yoon ray moom tout sauf ça kenn warta ray doomu aadama te ray doomu aadama damaa xamul lan lañ ciy jëlee te dinaa la benn affaire amul doomu aadama buy ray doomu aadama di rëcc ci àddina maag yow rek bu ñu nekkoon géeju sàngal kaam maag yow rek ci biir ndox mi kenn gisuñu ci àddina su ma la rayee dinaa feeñ ah. waaw nit kenn mënu koo rey te doo feeñ ci àddina kon loolu jarul def loo xam ne nag boo ko defee da ngay feeñ par force loo ci def ah. ndax nit boo ko reyee sa conscience tranquille dootul taxawati doo nelaw doo lekk doo naan à vie nag léegi loolu day feeñ sa bopp boo doful da ngay dee boo deewul dañu lay tëj kon loo xam ne amul rendement jarte def dara jaru ko ci àddina dix milliards de pesos dara jaru ko moo tax maas man du ma xeex du ma xuloo armé naa nag maa ngeeg samay bagage toog lépp licencié waaye du ma tooñ du ma xuloo ku ma nag mu mbir jug kaw waaye nag duma xeex ku ma saaga ndey sax ma jéggal la parce que at mu def maanaam nit dañoo dee ba pare di dox mën ngaa xeex ak nit dóor ko wala nga xoj ko mu mu faatu yàllaaw ñu jiiñ la ko moo tax yu bari nañ ko maytu rey moom loo xam ne doo ci rëcc moom te day yàq sa àdduna jarta def. jarta def jarta def nabu turu nabu lay bi nga xam ne tur tudd nañ ko ci ci mbir mi lan nga ci mën a def jàngat parce que dégg nañu ci complice ginnaaw bañ jàppee cinq autres personnes yi xam ne bokk nañ ci li nga xam ne muy meurtre Aziz Dabala ak kii Waly. waaw man nabu lay miinu ma ko noonu xaw ma ko noonu sax mës nañ ma ko présenté fële da Pikine yàgg na. mais miinante wuñu xam mais nag yii nii maîtriser wu ma ko daal. mais ndeem ñu ngi ci yoon yoon mi ngi ciy liggéeyam. Mm-hmm, mm-hmm. na yoon def liggéeyam waaye mm-hmm. affaire u nabu na yeeg. diw nee naa mm. ki ko rey ak ah. yooyu yëpp moom sama yoon néew ci ndax xamaguma nu mu demee te justice mi ngi ci képp ku ciy wax nag na tëj làmminam bàyyi justice mu liggéey parce que justice du Sénégal man dama leen a wóolu police Sénégal amul lu leen rëccaat mbayee ngi nii mbay Kouthia bi affaire yi amee ba coolu na kuur ne ko balaa ñoo màggal ñu jàpp ñu ko rey ñu ngi nii waxoon nga ma da nga ni ma suñu suñuy ñibbi suñuy ñibbi Touba nga parce que police Sénégal ñoo caaxaanatul mënoo fee def lu rëcc barke Serigne Touba ñu bàyyi ko xel dëkk bi yëpp am ay caméra surveillance dëgg la lu leer laa la wax chinois yi koy defar guddi gi la ñuy monter bëccëg gi di rey sama bopp xale yu ndaw yi di jàng ci man xale yu ndaw yi di jàng ci man may jaar ci ay pax xale yu ndaw yi di jàng ci man may jaay jaar ci ay foos xale yu ndaw yi di jàng ci man may dugg ci ay ay dëj xale yu ndaw yi di jàng ci man ba ma ñëw indi lu garaaw biir Sénégal di liggéey di avancé maa bëgg parti bi nga daggal ma ko spécial waaw léegi man damaa bëgg damaa damaa bëgg tooñ baaxul démb damaa tëdd ba guddi non sénégalais yi fooyee wuñ ko xam nañ ni man biisu laa man sénégalais yi bijou laa man je suis un je suis une personne très très très honorée très honoré et très respectueux man je suis le seul petit boo xam ne dama démarré zéro di wan sénégalais yi sama sama sénégalais yi di gis sama sama man maay référence bi nga xam ne ndaw bu nekk ci àdduna ndaw nga bañ ko bëgg koo bañ boo tëddee dangay xam ni Boucher mooy le seul référence de l' Afrique de l'Ouest ci Sénégal fii moo gën a leer la référence <laughs> xam nga sama référence xam nga da ngay jékki gis nit ñi ne ñëpp tëdd jon mais man sama live yi dama koo filmé man sama référence dama commencé à bas hmm. di yéeg di liggéey di rey sama bopp xale yu ndaw yi di jàng ci man xale yu ndaw yi di jàng ci man may jaar ci ay pax xale yu ndaw yi di jàng ci man may jaay jaar ci ay foos xale yu ndaw yi jàng ci man ci ay ay dëkk xale yu ndaw yi di jàng ci man ba ma ñëw indi lu garaaw biir Sénégal di liggéey di avancé di nekk ci jàmm xale yu ndaw yi di jàng ci man te musuma wax lu ñaaw mosuma wax lu bon sénégalais yëpp di jàng ci man kon man maay référence bu ñu war a gën a protéger biir Sénégal nañu wax dëgg te koo xam ne nag bu ko neexoon dootul jaar Sénégal su ma neexoon du sama yaay du sama papa du samay doom du kenn koy jaar Sénégal Sénégal laay abandonné ne tir <laughs> bu ma neexee dëkk Angleterre sans sans problème am fa këyit am fa lépp su ma neexee dëkk France su ma neexee dëkk Amérique su ma neexee dëkk Australie Autriche su ma neexee dëkk am na 32 pays yoo xam ne su ma neexee su ma ne non non Tanzanie mënul dekk mais su dëkk laa wax dëkk di liggéey am na 32 pays yoo xam ne américain am na droit yóbbu fa njabootam canaliser leen avec passeport dëkk boobu noonu. Ah. ñu jox leen walking permis dëkk boobu ñu dëkk fa di dundee foofu di fa dëkk duñ jaarati benn dëkk. ah bon barke alxuraan 32 ah. pays. Ah. américain am na droit boobu. man ma bàyyi lépp ci 32 pays yooyu ñëw fii toog fi. fii nga xam ne fii la ñuy fii nga xam ne fii la ñuy dóoree nit nga xam ne fii la ñuy rayee nit fi nga xam ne fii la ñuy waxee lu ñaaw fi nga xam ne fi la ñuy yàqee nit fi nga xam ne fi la ñuy jéppee nit fi nga xam ne fi la ñuy saltalee nit fi nga xamni fi lañuy la gor fi nga xamni fi lañuy soulé ni suulee te deewul fi nga xamni fi lañuy rayé ni reyee te deewul fi nga xamni ne fi boo dee rek lañ lay yëkkati ne la ya fi ne fi nga xamni lo am ñu ne baxul fi nga xamni dañ lay tuumal fi nga xamni dañ lay yàq ma bàyyi réew yu bax yoy yëpp ñëw fi dëggël sama bop ndax lan mbeggel ak ciofel kon dañu ma wara protéger. ah waxati nga. bayina réew yu neex yoy yëpp yi nit ñëpp di reebe la baax ñëw ci réew mi nga xamni buñ naan réew mi gën a bon ci àddina dañ ko ciy boole. ndax fii la ñuy yàqee doomu aadama fii la ñuy suulee nit te deewul fii la nit di baax ñu ne baaxut fii la nit di gore ñu ne gorewut fii la nit di amee ñu ne amu ko da koo sàcc. fii la nit di lu baax ñu ne waru koo def ngistal la fii la nit di bëggee Serigne Touba ñu naan bëgg ko day ngistal fii nit di bëggee Maam Alaaji Maalik ñu ne bëgg ko fii lañuy saagee kilifa diine fii la ñuy saagee kilifa aada fii la ñuy yàqee liggéeyu jàmbur fii la nit bëggee def investissement ñu yàq ko fii la ñuy suufale nit fii la ñuy tegal nit ay pièges fii la ñuy suul nit te deewul dëkk bii ma bàyyi dëkk yu baaxee yëpp nga xam ni yooyu yëpp amu fa ma ñëw toog fii loolu risque weesu ko kon nañu ma protéger parce que j'aime j'aime le Sénégal yaram daaw na j'aime le pays. oh. te opportunité yëpp amoon naa ko. dëgg ànd ak sama njaboot yëpp dem abandonné leen dootoo leen ma dégg dootoo leen ma gis. Ah. supprimer sama compte yëpp dootu na xam lu ci lu bousé ne ma dund sama vie ndax nit ku ne fexal xolam la ba pare yor sama xaalis mais defuma ko dama bëgg Sénégal kon nañ ma bëgg la bëgg bi ma bëgg Sénégal deug la mais bousé nañ ñëw ci mam Mor mam Mor lim na tu ben way ki xawma ko sëñ mam Mor sénégalais yëpp nañ ma déglu ki sëñ mag la ki sëñ mag la de ki xawma lan la nga naa ma señ mag déglu kii xaw ma ko xamaanuma ko musuma ko gis yàlla xam na ne ak rasulillahi xawma ko xamaanu ma ko su ma ko gisee it xaw ma fan la. bu dee daa ñëw ci restaurant bii. toog fi photo woog man te yëgu ma ko xaw ma kan la yóbboog def ay affaire xaw ma ko xam naa ne musul wax ma wax musuma nekk ak moom. man li ma barke Serigne Touba Xaadim Rasul ak màggal gii ma jóge xaw ma ko musuma sekk ak moom dara. mu dem toog mais man li ma jaaxal ban peeru yàpp la la yàpp ba di taf sa photo dinaan buse maa koy jox. ñàkk yëg ña maanaam ñàkk respect doomu aadama te dama koy plainte na ko dégg barke Serigne Touba dama koy plainte xoolal li mu wax. dama bëgg ñu tey man maa koy liggéey képp ku leen jox bayre ne xaal bi la xamul sekkere ba mooy bayre bi tëj réew mi jamono ji barki Cheikh Ahmadou Bamba ah. salon boo gis muy dox ah. restaurant boo gis muy dox ah. bitig boo gis muy dox nit ñi di ko rang coow li bari bu sekka jot dama nga laaj ko eh. bu sekka jot dama nga laaj ko restaurant ba eh. wala nga laaj fa <laughs> dama nga laaj dañu manam lu xal ci li ko ci wax non dama suñu mor manako mbacke manam damay taal 3 manam mu jeex xolal meuna fen ay way ci warna fen fen yalla xamne neena man dama ko wone ko 3 mana lay def meuna fen man luma am yalla yonent bi serigne touba ak sul xal barke serigne touba waxul deug day fen xawmako xamanumako day katch xawmako xamanumako du nit ku bax mi ngi ni xawmako nak kumu arnaké nak lek sa xaliss ya xam man xawmako xaw ma ko xamaanew ma ko léegi nag sénégalais yu dof yi man téeméeri dama woo naan ma buusa boole mag sëriñu bay mu leen di jéem a nax pour lan léegi sénégalais yi duñu am mental xaw ko de mi ngi nii taf sa photo ak photo Mame Ndiaye sama ko mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii xoolal xoolal ko gis xaw ma ko nee na moo koy li xaw ma ko ba pare def numéro numéro ma ngi nii jël leen numéro ma ngi nii xaw ma ko xamaanu ma ko. astafurlah. waaw restaurant boo gis muy dox dégg nga. bu see ci ban ban message ngay lancé sénégalais yi. nañ moytu yi nañ leen moytu nañ moytu sëriñ yi nax sénégalais yi ku bëgg ku la ñaanal da ngay dem sa ak sa baay. jox ko li nga mu ñaanal la bu ak sa baay dunduñu nga dem ci sëriñ bi nga yaakaar yoonu murit wala yoonu tijaaniya wala seex naa seex saat bu wala laayeen xaadir nga dem mu ñaanal la wala ñaseen wala nga dem xooli ku sant laay wala ku sant ak ku mën a mel ku sant laay ak ku sant Mbàkke ak ku sant Faal euh, ak ku sant Aydara ak ku sant ñooñu ñas ak nu ñu mën a mel buñ la ñaanalee yàlla mën na ci def sutura dëgg la ñi amul waajur kon ku waaw ñi nga xam ne seen waajur newuñu fi waaye saaru sëriñ yi moytu leen ay arnaqueur lañ dëgg la parti bii nag sama moom parti nag jox ma ko ma dugal mais loo wax ñi lay woo bu soo ba léegi di la wax ñi may woo bu ku mu jël saaga ko ku mu jël saaga maa leen jox ndigal boobu man nag suba dinaa dem gendarmerie foire mi nga xam ne liggéey lu baax rek la ñu xam dëkk bi gis nga Paris France la ci heure la neex dox kuloo ngi nii dëgg la foire bee fii moo gënoon a ñàngi ci àdduna léegi dafa réglé ne tàcc ne ticc caméra fépp li dox ba heure bu la neex gendarmerie foire chaque instant to oto yi naan wéngu la léegi nag dinaa fa dem wax ak moom te incha allah rabbi plainte bi suivi